بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون دجبي bi nekk ci ورد teraanga di agence su aj beytullahil haram safari world teraanga mu koy taxawal fii ci mbaaw at mu nekk am na ñaari benn parrain ak benn marraine boo xam ne bii du soppeeku dafay sax marraine bi mooy kan moy ummul mumin soxna Ayda si ibni Cheikh Alhaaji Abdul Aziz di yaay al Alhaja Bint Ndoy ak le premier magistrat de la commune de mbaw j'ai nommé Abdoulaye Pouy monsieur le maire vous avez la parole ñi ngi nuy ñep mak ak ndaw di jël nuyoo bi nak di ko si suñu kilifa bi ñëw léegi duma ko wax gan ndax yaakaar naa fii kenn gënu ko fi bokk suñu kilifa sëñ Habib ñu ngi lay dalal jàmm di la masawu coon di nuyu suñu frère bi Moussine Diop si taxawaayam bu muy def at bu ne di ko jàppale suñu sœur di nuyu nag kilifa yi fi teew ñépp nag su ma ne maam Mansour ak maama colonel Ndo yaakaar naa ñépp dañu dugg ci biir di nuyu suñu yaay yi su ma ne sama yaay yi Maguette Diop ñoom ñépp dañuy dugg maa binta yow tam maa ngi yaa asu ñu mooy nuyu ñépp nag eh, di sant yàlla nag di féliciter sama tànt ñaar yoon sama sœur ndax euh, suñu maam Ousmane yaakaar naa ne doomam sama tante la waaye sama tante Maymuna su ma ko xoolee sama sœur la waaye nag mu dugg suñu kër nekk sama soxna papa Babacar mu nekkati sama tànt moo tax ma ne tante ñaari yoon sœur yal na yàlla gën la jàppale lii doy na sant yàlla ah, suñee daganee si benn côté bi day mën naa wax ne sama maam dama koy wax macha allah ndax su la yàlla nattoo nga nekk si service amuloo jotu toog di dem fu ne ñu ne fay yóbbu nga am njaboot bu jigéen fu ne nga ànd ak ñoom waaye yor leen yar leen ba tey kenn ku nekk sa na mu nekk di yëngu soo ko si fekkee naw ko naw waajuróom moo tax ma ne alhamdulilah macha allah lépp taxawaayam la moo suñu tànt suñu maam Maymuna Siise mel newoon ci wet bi parce que tey dëkk bi yar fi doom nag yombul bu la yàlla suturaalee ba di am ba ñu ne suñu waree bu màkk teroo sa xel dem doone sax kilifa gu mag a mag wala imam wala dara mais sa xel dem ci benn xale bu jigéen nga ne binte day su ma demee ci moom am yaakaar sant yàlla yal na yàlla gën a tëgëral jàppale la agence bi nag yaakaar naa ne ku ci mën a seede man mi mën naa si seede ndax yóbbaale na ma sama yaay ñaar yoon màkk jël ko en charge toppatoo ko def si moom la nga xam ne bi mu ñëwee topp na yaakaar naa ay weer loo wax mu ne la binet binet bon nag kuy am hésitation wala kuy xalaat agence bii man ma wax ne moo gën si Sénégal de waaye yi gën si Sénégal si la bokk mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara te di leen balwaaq li nu tuddee al amaana fi l xajj wala sax ñu tuddee ko athiqa fi l xajj baat bi yëpp dafa wër rek ci confiance te àdduna li ko tënk mooy confiance bu ñu ko ñàkkee rek ñàkk nañ sunu dund jikko yëpp seen sang mooy confiance muy al amaana kon wala xarakata wala amala illa ma al amaana amul lu nit di def muy jur lu koy yokk ëllëg lu dul confiance te lalu إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ëllëg procès dana am de ku nekk ci ñun ñu ne la la yàlla dénkoon foo ca toll moo tax baatu amaana ci alquran dafa yaatu waaye wute ay dégg-dégg daañ ci ñëw benn ak benn buñ ko temps bi mayee jox sëriñ bi mu conclure mu ne fal abdu mukallafun bi aadaa il amaanatihi ila allah nit muy jaamu yàlla jaam bi yàlla togg na ko jëf dénk al amaana diggante mook yàlla ci boromam bi moo tax ba ci julli amaana la xam nga julli li nit ñi xamul mooy boo taxee bay kàbbar yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci avion di yéeg looloo tax sëriñ bi bu nuy julli bu imaam bi taxawee ci mihrab bi mi ngi naan bismillah pour ñu liqaamal ko loolu moo am ci avion boo leen duggee danga dégg hôtesse de bi di wax ne attachez vos ceintures alerte boobu la maamum bi di def ci imam bi parce que risque la liqaam risque la parce que yaa ngi war a def voyage jóge fii ci shahada walla dem gisanteeg borom bi ci xay xaybu loolu tuutiwul loolu moo tax bu ñu liqaamee ba noppi nga gis imaam bi yëndu xool ndeyjooram xool càmmoñam ne ne sawwu sufu fokkum mooy attachez vos ceintures léegi vol bi yéeg imaam kàbbar yéeg na ba imaam bi kàbbaree la ko vol bi yéeg boobu yaa ngi def munaaja diggante ak sa borom yaa ngi wax ak moom muy wax ak yow amaana la vol bi bu demee ba am fu mu toll nag am na fu muy tolluwaatee hôtesse de l'air bi dina wax ni dañoo nekk ci zone de turbulence takkaat leen seen ceinture yaa ngi ci julli bi yaa ngi dugg ci saar bi gannaaw ba nga jàngee faatiha na la noonu noonu ba nga war a dem ca dëkk ba nga war a jëm ba war a atterrir nag hôtesse de l'air bi waxaat takkaat leen seen ceinture foofu la imaam bi di war di sëlmalee teewlu bi muy teewlu ak taaya ba ak baatu asalaamualeykum bi muy wax loolu mooy attirir nañu ci jàmm kon julli al amaana la moo tax sëriñ bi ku ñuy wax urwa amaana boobu daf ko yëgoon ba buy julli dootul yëg yëgu dund dafa am feebar bu daloon urwa jàpp tànk bi médecin yu xool ko ne ko daal pour daal sa bakken baraaj bañ a dem dañuy dagg tànk bi ñu ñëw wax ko ko urwana tekk ba yàgg ne d'accord naa ñu ne ko nag pour dagg ko foog ñu am luñ la jox ndax jamono yooyu kenn du anesthésier nit ndax xewul woon bu njëkkoon si lañu daan dagge tànk yi si yi menuisier yi di yor or wane dagg ñu ne ko loolu ëpp naa def métit bi dafa dafa dafa jéggi dayo il faut ñu am luñ la jox loo naan lu tàqali tuut sa xel ba nga nelaw ñu dagg tànk bi mu lànk toog benn seconde bu may yëg ni am na rupture bu dox sama diggante sa borom munuma ko nangoo boo leen dagg daal dagg leen tànk bi nii may xoole waaye laa ashrabu maa yashrabu aqli du ma jëfandikoo loo xam ni su ma ko naanee ba bare tàqali ko sama sago sañu ma ko ñu daal di médecins yi dem consulter seen famille bi laaj leen ne ko seen wayjur de lànk na kenn du ko drogué ban jamono ngeen di yëg ni seen bàyyi dootul nekkati ci àdduna ci yëg-yëg xale yi ni ko xanaa buy julli mën nañ toj kër gi du ko yëg médecin yi nag nañu préparé dagg tànk buy julli ba urwa kàbbaree ba tàmbalee jàng ba ci rakkam bu mujj di taaya médecin yi tàllal tànk bi yëgu ko de dagg nañu tànkam faj ko ba bànd ko ba mu ne assalaamu aleykum la doog a tàmbalee yëg mettit wi kon boobu bokkul woon suñu julli tey yi xam ni day gaaw ci taay ci taay bu mujj ñu dagg tànkam ba faj ko muy doog ne assalaamu aleykum bi nga wara xamni koku amana la nekkon digeentem ak boromam أجمعوا على مطلب دونهم أشتاتا فما شاء كان وما لم يشاء فمرتبع كيف شاء الله Allah waaye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye noonu lañu daggee tànk wi ba mu paree téye tànk wi nag rangooñam yi tàmbalee di tuuru moom urwa njaboot gi naan ko waaw bàyyi luy jooy mu ne ko jooyu ma de ngir ragal mettit weeg lor wi waaye rangooñ yaa ngi tuuru ngir bég ci tànk bi ñu dagg ana tànk bi ñu jox ko daggetu tànk bi mu téye ci loxo bi di ko fóon moom roi naan ko gàcce ngaa la ama ba nga nekkee ci man ba léegi yëguma loo fi def lu neexul yàlla yow tànk yëguma jéego yu ma dox lu yàlla nanguwul kon gàcce ngaalaama xam nga kooku dimension bi mu yor ëpp na kon julli amaana la amaana dem na ba ci aj aj màkka bu ko confiance lalul du dox dale ko ci ki nga xam ni boo bëgg a dem màkk ñu war a jaar ak yow ci ay yoon tegal la programme ne la bu nu jógee Sénégal dañuy dem madinatul wara nga gisanteeg sa soppe ba buñ fa jigee danga jaar bi lo alin dugal sa yéene aj boo fa jigee itam dinga dem ca Kaaba ga tawaaf jàkkarlook borom bi boo fa jigee dinga nga dem mun na muy tëraayeelu dee wowule tabaarakallaahu boo fa jugee di nga dem Arafat alxajju Arafa boo fa jigee daañu ànd ak yow ñëw musdalifa boo fa jigee di nga dellu sànni jamra ànd ñëw ci kaaba ga delluwaat mun na mooy pacte boo suñeen agence bi loolu amaana la loolu amaana la kon ki bind contrat bi ne nii laa lay defal package bi lii la moom na respecté package bi loolu mooy amaana diggante mag boroomam léegi pèlerin bi nag ki ñuy yóbbu la ma benn ujaaj defoon ab asëriñ bi maa ko war a yóbbu mag waaye daal dafa mel ni rek tabaarakallaahu yër na téere yi waaye yëgul téere yi jàng na téere yi waaye déggul téere yi ma nga yor a téere woo xam ni yaa yaakaar naa ni la muy peese ci ay kilo bari na ma nga ko bokk ak armalam ma wax la ma war a def bu ñuy tawaaf yëpp mu ne ma nee nañu ci téere bi ubbil ma page ba ne ma nee nan ma ñetti tuur yu njëkk yi dañu koy ñuqe tuuti ma ne ah loolu la téere yi bind de mais du mën a nekk fële mu ne déedéet téere yi fii dañ ko bind imaam Malik nee na ma ne ko imaam Malik ak imaam Shafi yu dëgg ma koy tëjal. te dégg imaam Muhsin li mu lay wax waaye ba ñu àccee ca biir Kaaba gi mu séen mbond mi ni mu wëree nit ñi bari mu ne ana imaam ma ne ko maa ngi nii mu ne fan laay jaar pour daw ñetti tuur yu njëkk yi ma ne ko yaa koy xool nag imaam Malik daal loolu la bind waaye feetal foo mën a jaar ba daw nga daw mu ne nit ñi dañoo bari ma ne kon téel ma téel te dégg li ma lay wax kon li ma bëgg a wax ci kiy dem bu mu sob bu mu ëpp na déglu ki ko yóbbu bari na ko jàng téere yi ba noppi bu demee kon leen Ndoye bii moo koy dirigé ne ko fii ngay jaar sa tànk soxna Bintu mii moo koy dirigé ne ko fii ngay te sa tànk parce que moo fa xam miin fa. xam nga màkk dafa métti parce que ku say réyaal jeex say ree jeex waaye ñii. dañuy dimbali ñi nga xam ni ñoom la ñu yóbbu màkk waaye amul bénéfice bu ñuy séntu ci ñoom ah ci ci li ma xam laa wax parce que man ànduma ak ñoom de bokk ma ci agence ba waaye nag lu ma am te muy dem ci seen loxo laa koy teg parce que wóolu naa leen am naa ci ñoom confiance yal na yàlla yàggal seen taxawaay kon nag yal na yàlla guddal li nga bëgg yaa ko xam yal na ko yàlla defal màgg yi ñu naan ko toogal bul demati mënu ko daje bi nek ci boppu agence Safari World Teranga di agence ak aj beytullahil haram ñu jël sunu nuyo yépp nak andak ziar ziyaar tëbbu jox ko sunu sëriñ di cheikh Mouhamadin il Habib ibni cheikh Seydi Aboubacar Nissi ibni cheikh haj Mouhamad Mansour ibn cheikh Alhaji Malick sëriñ bi nuyoo bi dafa ànd ak cofeel ak wegeel ak tëbbu. kewaat jataay bi yàlla mottaliwaat na ko ren. ci ndigalu Mawlana Cheikh Seydi Aboubacar Mansour al Khalifa ndax lii fi xew dara ump ko ci keroog bi ma soxna Binta woowee fekk moom mu joxe ndigal ci nama ne na jokkoo ak man mu waxtaan ak man ñu waxtaan programme bi yépp ñu teg ko ci loxo Seyd Muhsin أطل الله عمرك وأيدك ونصرك إن شاء الله تعالى مرافق لكو نتبو لفلو باري باري باري مني ما وقتان وچو لموي تنكو مني كو أه لجم تلقي يباب عثمان أك نجابوتم أك لدمبل نتني تبان تخواي لنو amee ca barab bu sell yooyu la ma ni ko te muhsin mooy def mu maarasa ak nit ñi man aj naa màkk waaye taxul nag ma xam la ca màkk taxul ma la ca màkk waaye kay jonjook ñoom di ànd ak ñoom te du tàqalikook ñoom biñ fi jógee ba ba ñuy ñibbisi moo la gën a xam lañuy ñuy nekke ma ne ko kooku mooy Seyd Muhsin moo ciy waxtaan mu ni ma waxtaan yi foofu la war a tegu euh, doom ju baax jafewul waajur wu baax moo jafe doom ju baax jafewul waajur wu baax moo jafe ndax mooy joxe doom ju baax doom ju jub jafewul ku ñaar ñu jub jur jub nga waaye dimbale leen ci jubal ku ñaari gor jur gore gor nga waaye dimbale leen ci gore qualité yooyu nag bu dajewul woon ci bint mi ak rakkam yi di ñoom meer ak ñoom roq ya kon duñu sañ a taxawal lii ci biir mbaaw wala buñ ko fi taxawalee it du mel nii wala bu melee nii seeni bokk duñ ko teewe kon nag bu melee ni mu war a mel amee fi mu war a am ñi ko war a teewe teewe ko nañu xool ñi ko seq ñan lañu ak ñiñ ko seqal ñan lañu mu am nag ay kàddu ñuy sant ñu ñuy sant particulièrement ki ci jëkk mooy wéy juram muy baayam xàqan di xalif général des Tidjane Cheikh Seydi Mouhamed man euh, euh, Cheikh Seydi Aboubacar ni si Mouhamed Mansour di bàyyu Adja Bint Ndooy waaye mu jël ko ba mu jël baay googu lem ko lem bu sew teg fee bëgg nekk taalibeem rek kon mu ngi gërëm sëriñam sëriñ بابكار سي محمد منصور واي مونغي گرميت فريرام دي سيد محمد الحبيب واي فراتر گ فله لوكو ساني سوكي سي كانامم نيك طالبيم نون ويت لاي سنت بو باخ Imam Mursin Diop ndax at mu ne mu bàyyi leppam ñew it la santé représentant chef du village de Mbaw di El non Massamba Seck lay chef de village ou Fall ak famille bi mu di Mouhamadou Mané Pouy noonu la sant imaam Lamine Seck bi fi jóge léegi waaye ngeen may ko nag mu sant bu baax wey jërëm ki ko yar tette ko lépp loo xam ne lii lu ñuy nawe gor mu def ko ci moom ba tey ji mu mën a diriger agence bi kookoy lëkkoon mu xaddam El Hadj suñu baay waaye nee na fa muy daaneele cant ñooñu mu ngi sant ki nga xam ne kii nag moo tax mu tal ko muy sëriñam muy frèram muy xaritam muy genn wàllam di El Hadj Babacar Pouy ak famille yëpp